faham naha suleyman yàlla nee na atte bu nekk rek bu ñëw seydina suleyman may nañ ko xel bu mu demee te kooku yonant la papam yonant la di daawud moom la yàlla joxoon zabour ci fukki fan ak ñaar ci weeri koor moo xam moom mi nga xam ne moo gën a neex baat ci lu yàlla bind bu dul muhammad sallallahu alayhi bu ñu demee ba jéggi siraat ba taxaw buntu aljana muhammad malayka yi dara ko jibril mikail azrail azrafil yàlla daal di ne dàng ci biti ne ki ngeen doon jaamu te gisu leen ko man la wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naazira ki ngeen doon takkam-takkam man la yàlla kenn ku nekk sa jaamu na mu toll noonu ngay gisee yàlla yàlla jël yaasin di ko baaral kenn du ko mën a àttan ñëpp dañuy daanu bu doon dee dana amaat ñu ne ñëpp dañuy dee Seydina Muhammad rek moo dul xam moo tax xaadimu rasul jant njolloor bi Mawlana Cheikh Ahmadou bàmba mi ngi naan lil mustafaa lil Mustapha xayri xalqillaahi manzilatun law wujjihat naxwaha kullul wara haaru ne Mouhamed fi mu toll ci dayoo ak martaba cëram ci yàlla bu ñu dajale woon monde bi yëpp def leen ñuy benn julli buñ def leen ñuy benn jëmm buñ na jàkk yonante bi dañuy tëlbët lil Mustapha xayri xalqillaahi manzilatun law wujjihat naxwaha kullul wara haaru ñépp daal di tëlbat ba mu des Seydina Muhammad yàlla naa ko anta xabibi yow sama soppe bi ne ko raayal bopp daawuda mu jóg bu ko raayee mu daal di jóg mu ne ko jàngal suratu arrahman allamal quran xalaqal insaan allamal bayaan baatam bu neex boobu bu koy jàng ñëpp di dekki benn benn yal nañ ci yàlla boole ñu ànd Seydina Muhammad dugg aljana moom bu doon jàng picc yi sax duñu mën a lekk dañuy déew njanaaw yi duñu mën a fàddante dañ koy wër moo tax benn guddi naa Muhammad dégg na kuy jàng alxuraan baat bi neex lool mu dox ci lënd bi ba teg loxoom ci kaw mbagga mu ne ko wallahi laqad te mizmaran min mazamiri ali daawud wallahi yow sa baat bi neexaayam mi ngi mel ni neexaayu toxoro toxoro mooy liit bu ñooñ daawuda moom la la yàlla jox kon kii dooma moo njëkk nekk avocat mu daal di ko tegalaat beneen morso xanaa mooy morso yooyu yu weex yi lang ci ñoom kon du métier bu bon ki Amérique di jooy ba léegi di Roosevelt avocat xeexal na Amérique ba Amérique génn ci ron domination bu Angleterre am réew boppam toppatul Grande-Bretagne avocat la woon John Ferral Kennedy man gisuma benn réew bu ma dem bu du ma gis luñ ko fa tuddee ba ci weti l'Obélisque si fii lycée John Kennedy Kennedy ku bëggoon nit ku ñuul Kennedy ku réyoon ci xalaat Kennedy bañkat fippukat moom John Kennedy avocat la woon mooy boom xalaat gu mag gi moo njëkk a toog ci sans fil ñu koy dégg ci le le 10 juillet 1963 mu ne hey yéen waa Europe tey jii maa ngi toog ci kanamu télé di wax écran bi ngeen may wane mënu leen ci dara tey man la yàlla may aayu Amérique sama aaye andi naa sans fil sama image mu ngi jéggi océan Atlantique di dugg Europe mënu leen ci dara kii ci jamonoom la lii amee télé yii di jël yemu ca mu ne Amérique fase leen suuf si màgget na dem leen ngeen ngoro weer bi ñu ne kii kat dafa bëgg a absenté fan la ñuy demee ci weer bi 1963 ba juróom-benn at 1969 ci lundi lundi 21 juillet 1969 ci 3 heures 56 minutes doomi aadama teg tànkam ci kaw weer bi muy Neil Neil Armstrong ak Aldrin kii kan moo ko defoon mooy John Kennedy xalaatam musta dee mukk lundi 21 juillet 3 heures 56 minutes 1969 Apollo 11 daal di wàcc ci kaw weer bi Neil Armstrong wàcc ne tey sama tànk yi maa ngi koy teg ci kaw suuf si di jëmmal képp kuy doomi aadama ci ndimbalub doomi Amérique te fekk dee na ba am juróom-benn at kooku avocat la woon moo wax waxam ju metti joojale américain yi mere ko ba rey ko ñu rey ko ci 22 novembre ca Dallas ca Texas 1963 mi ngi naan doomi Amérique yàccaaral bi ëpp na caakaay bi xumbaare bay leen ko kenn du gore bu lu nga goor ci dara jël leen ngeen jox réew mi waaye bu leen di jël ci réew mi don't ask your country what he must doing for you but ask yourself what do you must doing for your country kii Kennedy avocat la woon Fidel Castro ki ne woon du wat si kimam bi tànk que Afrique jeexalul ñëpp am indépendance ca Cuba walla Kiba avocat la woon Mahatma Gandhi baayu Inde ci indépendance avocat la woon philosophe la woon avocat la woon Vladimir Lénine ki nga xam ne moo defoon Union soviétique ci 1917 ci xalaatu Karl Marx ak Friedrich Engels ba Union soviétique am doole gi dem ba Amérique ñemoo ta xef ci kanamam waroon na fi des warutoon a tocc jigéen bu amul wujj sukkinam du rafet Amérique tey mi ngi doon gendarme maa ngi jégalu ci gendarme mu ngi doon gendarme tey di kàcciri àddina bi rek waaye bu fi Union soviétique nekkoon du ko def ba mu faatoo Staline ñëw ñoom Christophe André Goromiko Alex Kosogin Leon Brezhnev ñoom euh, Tchereninko André Pof ba ci Gorbatchev mu soog a toj kooku avocat la woon waaye Madiba di Nelson Mandela avocat la woon keroog bañ koy téye ci waxam bu métti boobale mu ngi naan euh, brothers and sisters you must know the black and white they all the same samay jigéen samay càmmañ war ngeen xam ne nit ku ñuul ak bu xonq yépp benn bi lañ yàlla moo leen bind waxti laa fi alsinatikum wa alwaanikum kon kenn gënul kenn li ngay génnee sa morom inna akramakum indallah atqaakum ki ragal yàlla ñu ne ko ràpp yóbbu ko Roberts Island dem tëj ko bañ ko weqee tubaab bi weq ko alkaati mu pénitencier bi mu terteri boppam ñoo dóor ci miir bi deret naaj ci mu xool ni mu xonq coy mu gesto yem ci tubaab bi mu ne ko you don't happy kontaanoo mu ne ko yes I am happy mu ne ko lu tax waay bégoo mu ne ko ahan naa de mu ne ko waay lu tax mu ne ko deret gu xonq gi this blood deret bu xonq bii ëllëg mooy tapi bu xonq bi ñuy lal ma daal di ci jaar dugg ci palais présidentiel wallahi yàlla def na ko dugg na prison ba génn prisonnier politique bi gën a màgg muy moom àddina gi yëpp sumul ko mbaxana mu ñu lalal ko tapi mu ànd ak ANC African National Congress ñu gunge ko mu dugg biir palais présidentiel mandaam jeex ñu ne ko président awi ah mu ne déedéet góor du ñiitaat bool kon waroon na jàngal suñu chef d'état yi ñu bañ a ñiitaat bool bi waaw boo demee ba sa mandat bugg a jeex ngay changer constitution comme chauffeur ak volant bi yenn temps nga yóbbu ko gauche yenn temps droite bugg falu bugg sa doom falu nga lekk say mbokk yëpp lekk kañ ngay liggéey réew mi doo ko liggéey hmm, doo ko liggéey di liggéey rek di teg ay xeer rek te doo tabax mukk hmm. aywa kon Moussa métier gaa ngi noonu dara bonu ci wéyal di liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey sa ñaq boobu jébbal nga ko Seydina Muhammad yàlla na la ko téyel yaa rabbi euh, ni oo rawee ci weñ yi yàlla nga rawee noonu say maas euh, bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa fi ngeen ma àndi wallahi kontaan naa ci di université Cheikh Anta Diop kaa mboot ma boroom xel du ko wax waaye kaay ñu boot la moo gën a ànd ak xel li may bëgg fii yépp mënu ma woon ñëw kon yéen may occasion bi du université bi moo tax waaye ki ñu ko tuddee Cheikh Anta Diop Cheikh Anta dafay wóllëre sama maam wóllëre sama baay sama wóllëre man ci boppam